yi journaliste bi laaj ko na ko abu cubaloo yow bu njëkk si woon nga lool ci réew mi léegi nag dañoo gis ne gars yi waxu duñ say wax ana lan moo ko waral abu cubaloo daal di tontu na ko àdduna ak loolu ñoo ànd léeg-léeg mën ngaa siiw léeg-léeg say mbir daal di tagg témbe journaliste bi laaj abu cubaloo na ko dégg naa ci ay rumeur yow dañu la marabouté maanaam dañu la liggéey abu cubaloo daal di koy weddi nee na kenn marabouté ko maanaam kenn liggéeyu ko te wax joojee nañu ko bàyyi journaliste bi laajaat na ko abu cubaloo yéen waykat yi joxoon bi ndax jot nga sa wàll jubaloo na ko jot naa sama wàll journaliste bi na ko ñaata nga jot abu jubaloo na ko san vingt mille la jot journaliste bi yemul foofu nee na ko abu jubaloo yow dégg naa ci ay xibaar ku bëgg jigéen nga maanaam musique bi sax talatoo ko ngir jigéen abu jubaloo daal di koy tont nee na ñu tuumal ko na dangaa bëgg jigéen moo ko gënal ñu tuumal ko na ko borom ñaari tur yi nga yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex tey moo xëy séq waxtaanu yaatu ak abu jubaloo ay yéen a kaay gi di ko di jeex enquête las vox populi xëy wax ci lu soxal wàllum élection locale yi nga xam ne daat nañu koy dàq niki démb ci assemblée national projet de loi bi nga xam ne mooy dàq élection locale yi ba pare yokk mandaa ñi nga xam ne ñooy maire yi a conseil municipaux yi démb daat nañu koy voté maanaam projet de loi ba jàll na majorité ba ñoo ko voté journal bi nee na gën ngaa bëri fanweeri fan ak benn ci weeru janvier atum 2022 la ñuy amal élection locale yi Cheikh Bara Dolly Mbacké député PDS ni ki démb daat nay wax Félix Antoine Diome nee na ko yow Antoine kenn wóoluwula te jamono ci ay magu yi maanaam ay njubla ngeen di waajal waaye nag nërmeelu gi nga xam ne moom ngeen nar a ngeen di yeexal bay boo ngeen organiser élection yi jamono ji kenn bëggutu leen te Sénégal yi maanaam ñoo doyal si yéen a Aïda Mbodj nee na tout cas moom dafa njort ne am na ab agenda caché boo xam ne moom la majorité bi am Cheikh ma ji ak Moustapha Guirassy démb lu ñu waxul Macky Sall ak Félix Antoine Diome ci dàq gi ñu dàq élection yi dañu ko fàtte yéen a kaay gi délibération xëy yóbbu ñu commune bu Golf Sud foofee nga xam ne Aïda Sow Diawara mooy sunu maire journal bi nee na dafa am benn conflit d'intérêt boo xam ne bu garaaw a bu ñuy tuumaal Aïda Sow Diawara ndax dafa am benn marché bu jëm ci ñu yeesalaat école Léopold Adolphe Diagne marché boobee nag maire bi di Aïda Sow Diawara maanaam doomam la jox marché bi loolu nag tax na ñenn saskan kan ñoo ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu yaman nee nañu conflit d'intérêt la waaye nag mal gouvernance bi nga xam ne moom la Aïda Sow Diawara nekkee ci commune bu Golf Sud maanaam dafa jégg tayoo yéen a kaay gi délibération ñu xëy fekk fa Amadou Ba nee ñi nga xam ne ay responsable politique APR lañu te jege Macky Sall dox diggante askan weeg njiitu mi maanaam ñooñu war nañoo xoolaat seen bopp xoolaat seen doxalin yéen a kaay gi di bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum finance ci réew mi nee na at mi dina génne lu toll ci cent cinquante milliards ngir na jàppale ko ndaw ñi ngir ñu mën a am am xëy yéen a gi di enquête nee na imam El Hadji Omar Diène mi nga xam ne mooy coordonnateur commission nationale de concertation pour le croissant lunaire dañu ko agressé te nee na ki ko agressé mooy chauffeur imaamu grande mosquée bu Ndakaaru mbir ma jamono ji maanaam teere ji na fa mbaxana doone benn yéen a kaay gi di las maître Djibril War di ab député bokk ci parti bii di APR nee na manifestation agression yi nga xam ne moo amoon ci réew mi ña sa dee ñëpp Ousmane Sonko moo leen rey niki démb la ko maître Djibril War xamle ci assemblée nationale yéen kaay gi de Dakar Times xëy na ci attaque terroriste yi nga xam ne état islamique ñoo koy def ca Mozambique yéen kaay gi dikk na ci ak ñàkk rek tis gi nga xam ne ñoo dugg askan wi nga xam ne ñoo nekk ca Mozambique journal bi nee na genn wàll ca Mozambique maanaam bët gànnaar ga ñi nga xam ne ñooy terroriste yi ñoo ko ak ñoo fay lëmbe ñooy teg askan wa fitna yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne nag ñoo ngànk réew ma ne mu autorité yi la askan xaar si ñoom mooy lu jëm ci seen wàllu kaaraange yéene kaay gi di réew mi quotidien xëy génn ñu réew mi nee na askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Nigéria bu ñu toogee ci am nen du toj la ko waral mooy seen njiitu réew ma di Muhammadu Buhari jël ñu ko yóbbu ko Londres ndax dafa feebara jamono ji polémique bu rëy maanaam ay xiini miini maanaam moo ci am li am ci yéene kaay gi di esat mooy tey ji ci wi end bi ci Europe dina am match yu tàng jër Paris Saint-Germain dina dalal Lille Leipzig ak Bayern Séville ak Atlético yéene kaay gi di sunu lamb nee na mortal combat diggante ma